maaleykum chers internautes Dakar People ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay ravi de vous retrouver dans votre site leader Dakar People site bu leen di jox ay renseignements yu réel en temps réel tey nag ñu seet si kenn koo xamante ne si moom mu naan la l' international mu nekk kenn koo xamante ne sénégalais yi ñoo ko bëggal seen bopp mu toj fu ne nekkul kenn koo xam ne dañ koy présenter sax dañ koy bàyyi rek mu nuyu ak mbokku internautes Dakar People. waaw ginnaaw sant yàlla julli si di sant samay ñaari waajur di sant waa Géejawaay bu baax a baax di sant waa diaspora bi ñëpp waa di nuyu sama waa dëkk fi dëkk muy Géejawaay xam nga di nuyu waa Géejawaay bu baax a baax a baax waaw képp kuy safoo Bou Siteu rek waaw maa leen nuyu bu baax a baax di nuyu waa koñ jaxaay xam nga Massa Ndiarème xam nga fi ma dooree fi nga xamante ne xam nga falaa waaw falaa nekkee toppee ba bëgg làmb daal waa Massa Ndiarème maa nuyu bu baax waa di nuyu jàmbaar yëpp nag. waaw dawal ko tu sareet yi amu seen fay waa Massa Ndiarème waa Tiwaan Pël maa ngi bu baax waa xam nga waa Daaru Salaam xam nga di nuyu tamit waa Namara fi ma dëkk waa si biir Tiwaan Pël la waaw Namara maa ngi nuyu ñëpp waa ba cité Agnès bi xam nga di nuyu ñëpp daal di nuyu tamit waa cité enseignant bi xam nga waa Daaru Salaam waa Tiwaan Pël di nuyu tamit suma papa suma autorité boo xam ne mu ngi Tiwaan Pël ñu koy wax Basirou Ka waaw borom terrain yi Basirou ko maa ngi koy bu baax a baax a baax di nuyu suma papa Lat Diop waaw maa ngi nuyu bu baax. waaw di nuy magul làmb yëpp nag di nuyu mbëru géejawaay yëpp. waaw di nuyu champion yëpp nag. waaw képp ku nekk géejawaay di takk ngemb rek Mm. waaw Bou Siteu nuyu na la quoi waaw di nuyu waa Géejawaay bu baax a baax a baax a baax. am mm. ni ngeen ko gisoon nee naa la nekk na kenn koo xamante ne kenn dootu ko présenté ci mim réew ndaxte nekk na koo xamante ne si boobu malaan ci li muy yëngu mu xarañ ci lool mais dañoo fan yi dañoo jublu nekk ci ay guddi yoo xamante ne si boobu malaan la réew mi daa yëngu accident yi bëri bëri lool ñoo xamante ne ñu ci ñàkk seen bakkan ba ci keroog saa si yoonu sànkal bi gis nañ seen accident bi 21 morts moo ci liyoon en tant porteur de voix quoi loo mun ban message nga mën a lancer chauffeur si. waaw chauffeur yi moom lu ñu leen di lancer rek bala ma wax dara sax damay jaale quoi ñi nga xam ne am nañ ci seen mbokk yu si décédé waaw ñooñu maa leen di jaale bu baax a baax di wax ne affaire yi métti na trop waaw métti na daal ba fu metti yam mais xam nga waaw nañ xam ne ndogalu yàlla la tamit. waaw lu yàlla def rek mais tamit chauffeur tamit xam nga dañuy vigilant bu baax si oto yi bu baax. xam nga te parce que nga yeb ay bakkan waaw maanaam war nga xam ne ay bakkan nga yeb quoi te ñi nekk si oto bi ñëpp yow yaa yaa yor seen bakkan waaw yaa leen war a sauver te xam nga télé bi wóoratul waaw da ngay gis sax yenn saa benn oto di daw nii essence bi bënn si suuf muy xelli essence boobu noonu di tuur est xam nga ne moto bu si jaar wala lu si mënti jaar day day glissé te essence ñëpp xam nañu essence si tali. xam nga yooyu yëpp bëgg naa tam ñu koy invité télé bi booy dawal nga gis mu tooy freiné sa oto waaw nga yor camion nga yor taxi loo mën a doon boo gisee télé bi tooy fere na sa oto wàcc xool bu nekkee essence bu tuuru la nga taxaw signalé mais gis nga yenn soog yu bëri ay essence yu tuuru la boo si jaaree da ngay saaraan da ngay dem xam nga soog yi daal ñu ngi ñaan daal ñi si ñàkk seen bakkan ñëpp yàlla leen yàlla defal yoo xam yàlla xaaral leen si àjjana fiir daw si quoi di masuwu ñëpp nag ñi si gaañu tamit waaw man buus itam maa leen bu baax a baax a baax a baax. en tant que en tant que porteur de voix keroog ba nga dégg am na benn accident bu fi am fukk ñaar fukk ak ñu si ñàkk seen bakkan ban ti yëg am muy maanaam suñuy mbokk ñoo dem. Mm. te parce que ñun ñëpp ay sénégalais la ñoo bokk nday ñoo bokk baay xam nga waaw mais metti na daal xam nga rek waaw gis nañ affaire yi nu mu demee mais dañuy ñaan rek oto yi xam maanaam ñuy daw ndànk te parce que daw ndànk dal ndànk xam rek boo dawee bu baax foo moo loolu foo dal ak moo la sama waaye di nga jël ay bakkanu ñoo xamante ni tey jii yow yaa waroon service bakkanu ñooñu mais tamit gis nga yàlla lu mu tudd ala kulli aali da nga ciy jaar waaw ay sog yi lu yàlla tudd la si nit ku si nekk bind na yow ni ngay génne àdduna xam nga ku si nekk bindal na ko ñun dañuy dox nii di dem nii rek kenn xamul waaw dañuy ñaan yàlla rek mujj bu rafet suñuy dem ñu dem si demin bu rafet te parce que fii kenn du fi des waaw fii ñun ñëpp dañuy génn àdduna ma maanaam dañuy jiitoonte la rek wallahi da ngay gis nit gaañu man la man damay xam ni maanaam kii ndeysaan daf ma jiitu rek yàgg-yàgg kenn xamul mois bii ñu nekk kenn mënul waat ne ma sam waay mois bii nii dina la mois de janvier dina la fekk kenn ñemewu ko waat te kenn xamul. te borom bi ñëpp gis nañ nu muy ñëwee. waaw amaana ñi dem da ñoo jiitu rek. mais dañuy ñaan yàlla xama yàlla yokku ñu gudd fan ñun ñëpp. xama ñu fekkee lépp daal. waaw moo loolu ci si yàlla ñu ñaan loolu bu baax a baax. nekk na mbir boo xamante ne si ba mën naa la képp kuy sénégalais yaa ngi koy métitlu ñuy ñaan rek euh, chauffeur si def ndànk te bàyyi xel tamit euh, ay ay borom njaboot la ñuy yeb si seen i oto yi. am na ay xew-xew yu bari nag yu fi jot a jàll dañuy ñëw waxtaan ak moom mooy si combat Balla Gaye Boy Niang boobu la ñuy njëkkee en tant que doomu géejawaay nga nekk sampion euh, dëkk fii si géejawaay bés boobu nu mu la def. waaw bis boobu moom nu ma def rek muy bis bu tiis bis boo xamante ne maanaam mosu ma woon xalaat sax. man loolu dinaa dem stade lu mel noonu arrivé ma daal musuma woon xalaat barke Serigne Touba booy ñaar daan Balla loolu musuma woon xalaat barke Serigne Bamba Mbacké te parce que man mënu ma daan raq ñëw daan koo xamante ne nii mooy lion bi xam nga rek loolu day day garaaw quoi barke Serigne Touba xam nga rek daan koo xam mooy sunu imaam imaamu Géejawaay Balla Gaye de koo xam xam ne imaam mooy sunu imaamu Géejawaay barke Serigne Bamba Mbacké waaw xam nga rek affaire bi metti nag waaw affaire yi métti na ma ba ba fu métti yam mais dañuy xam ne dafa gën. waaw amaana lu gën la quoi mais si biir blessé beeg yooyu noonu yëpp mu ngi si biir te ñun xam nañ luñ indi jour boobu stade xam nga xam nañ luñ indi bu baax a baax a baax a baax. ñun xam nañ luñ indi ñun luñ indi xam nañ ñun duñu yàq bis comme nu ma ko fii waxee rek du ma si mës a jóg. Balla Gaye de koo xam-xam ne du yàq bis dañoo am blessure bu métti waaw ñun ay kilifa lañ. xam nga ñun ay kilifa lañ. ñun ay kilifa lañ ñun waruñu toog di wax di jéem a nax sénégalais wala di wax loo xamante ne nii maanaam maîtriser wuñ ko. te parce que dama am jabar. dama am jabar dama am doom kon kilifa la kon di yoon may toog fii di wax loo xamante ne nii ma la sam waay mooy loolu dama am kilifa man lu leer laay wax balagay Gaye 2 daa blessé ñun xam nañ li ñu indi. yee. mais ñëpp jàpp ne Balla Gaye moomu ñu gis si bi fecc yi ak daw yi ko blessé woon mënut a def loolu noonu. waaw yow xam nga yéen maanaam c'est que yéen da ngeen maanaam gis nga yéen boo la nekkul milieu bi ngeen nekk rek ngeen xam mais ñun yéen milieu showbiz yéen yéen yéen a moome loolu mais ñun milieu làmb ñun si milieu làmb lañ nekk di dund làmb xam nga kon ñun du yoon ñun ñuy toog di wax loo xamante ni maanaam xam nga sama jamat rarement xam nga sax xaw ma sax nuñ koy waxee si français waaw yaa ma gën a xam waaw di wax loo xam maîtriser wuñ ko daal waaw loolu laa bëggoon wax. mais ñu gis combat bi bu mu jàllee coow li bëri coow li bëri na fii si géejawaay ba seen ga pa boobu noonu fàtte naa tur bi sax père ba mu génn mu ne mbër géejawaay joxul ko cëram depuis mu ñàkk li mu amoon li daal mënatul dimbali mbër yi mënatul jënd ticket yi kenn joxul ko ci cëram ba mu wax sax ba tudd ci Sa mu ne en tant que Sa Thiès respecté ko dootu ñëwati sax si bésu Balla waaw loolu maanaam loolu defoon naa si sorti sax mm-hmm. waa defoon naa sorti télé kii senegal ti buzz defoon naa si sort yoo xam nga génnoon naa sunu papa la Père Diaw kooku sunu papa la kooku maanaam kooku maanaam monument géejawaay la daal waaw defoon naa sort ba ñaan ko te xam nga xam naa ni dégg seetaan na ko te xam naa ni li ma wax. muy maanaam ñun combat bi dañ koo soxla combat Sa Thiès waaw loolu laa ko fa wax ne ko combat bi dañ ko soxla combat bi soxla wuñ ci ay génn xama di di di xasantente xam nga li te yow sunu papa nga waaw loolu laa ko wax mu dégg affaire bi génn sax tontuma bu léegi ma xam ne kon sama papa ji dëgg la doomam laa mais jàmm laay dox gis nga ne da ngay dox si jàmm booy wax booy wax si yëfu nit da ngay da nga siy wax jàmm mm-hmm. bul ci wax loo xamante ne ëllëg ñaar ñee buñ jubóowee nga des ci man léegi kenn dootu ma du wax loo loo xamante ne métti man léegi kilifa laa man léegi nekk duma si ay caaxaan de mm-hmm. dëgg la bu site nii bu site dina bégalee mais léegi damaa dama dama commencé waat pour defar sama avenir mm-hmm. waa peut-être bii nii si émission bii nag laa ko tàmbalee dama pare pour defar sama avenir mu rafet te parce que man kilifa laa xam nga rek kilifa laa léegi nekkatuma buusita n'importe qui xam nga rek nekkatuma buusi dem importe kii dañu waxante dëgg rek. léegi kilifa laa léegi lépp lu may wax dama koy teg si temps di wax loo xamante ni lu ma nit di xeebee te yàlla xam na ni li may wax yëpp maanaam dara yeggu ci sama xol damay wax di bégale rek mm. mais yenn saa tamit dinaa wax loo xamante ne nii xam nga damay dugg foo xam waruma fa wax mm. xama rek mais yenn saa man damay seetaan sama émission di di ko seetaan di wax di di di ko déglu mm. xam ne man wax lii waruma woon wax def naa erreur te parce que nit kese laa yenn saa damay seetaan sama bopp gis ni man wax naa erreur mais dama naan non lii dootuma dalati léegi man noonu laay dundee di jégalu nag képp koo xamante ni mus naa wax loo xam xamante ni mu métti la si internet di tuuba di jégalu bu wér barke Serigne Touba Mbacke mm. man Sénégal la bëgg mm. man waratuma juum barke Alxuraan waa Sénégalais yi sax war na xam ne man waratuma juum mm. te parce que ñoom dañ may safoo man ñi ma bëgg dafa bari macha allah xam nga di bëggee na képp kuy enjoy Bou bëgg Bou Siteu rek maa lay bëggee bu baax a baax a baax. mais ci combat Balla Gaye boobu la ñuy desandi ba léegi. Balla Gaye Boy Niang su ko mënal la Boy Niang ñëw géejawaay raatale ñëpp daan fii douze mbër ba nee na léegi. six la. ah non non nee na <laughs> ma gis journaliste yi sax di yokk yéen a ngeen mel ni sax ku faraloon booy ñaa bu lan yokk. ah non yéen damay seetlu ku suñu man ñi ma defal émission yëpp ñu si bëri dañuy jéem a yokk kii day wax lii day kii wax lee kii yokkaat. non non non six la six la daan. saako jor ba muy daan saako jor saako jor dafa feebaroon di nuyu saako jor à passage di nuyu doomu ndayam Momar xam nga saako jor dafa blessé woon ñun xam ne ñun si laamu lañ nekk. guy gi Amérique la gaañoo si faar wax na ko sax def na émission wax ko. ba ko taxe guy gi bàyyeeku daanu. xam nga. yee noonu la noonu la demee ba muy daan mbiis mbiis daa ñëw ba si laamu ji bëri jël moom day ndamoo sax koo xam ne sax daa ñëw ba si laamu ji bëtam yi jël sax da koy ndamoo non Sa moom blessé wul Sa Thiès ëppal moo ko daan te parce que dafa ñëw xeex xeex boo xamante ni xeex bu baaxul ñun ñi doon seetaan sax ñu ngi naan waa kii lan lay bëre nii. te parce que ñoo ñëpp ay doomu géejawaay lañ ku si def erreur dañuy taxaw ne da ngaa def erreur parce que waru woon si sànni loxo yi di laaw kenn xamul lu muy xeex. xam nga looloo ko ñàkkloo ko mbaa mais bu taxoon vigilant du moroomu Boy Niang Balla gay 2 berki demoo Ndiaye gis nga liñ indi ñun liñ indi ñun xam nañ ni tànk bu lagaj lañ indi. waaw tànk bu lagaj lañ indi xam nga rek maanaam mooy blessé rek. fan yii passé maa ngi gis waa Pikine naan dañ may jéem a vaar mënoo leen maa vaar xam nga Balla Gaye de ba ko bombardier di daan boobu dafa feebaroon mais ku feebar bokkul ak ku blessé. mais non lenn am na yéen géejawaay gis nañ ne saa yu ñu daanee Balla Gaye rek daa feebar ou bien daa blessé. mais non te parce que maanaam noonu lay demee barke Serigne Touba Mbacké maanaam Balla day yëkkate ay 500 kilos. di kuwaat 500 kilos di yéeg di wàcc. mais imagine toi loolu daa xaj si tànk mais daa xaj si tànk kenn xamul lu tànk attan bépp nit ak yax boo mënta yor kenn xamul li tànk attan te mbër yi xoolal li ñuy yénoo rek ñun dañuy sëfoo man man mii damay sëfoo ay ay cent deux cent kilos man damay sëfoo ay deux cent kilo te am na ñoo xam boo ku ma ko fa waxoo doo danga naan non non. te xam ma rek ñun mooy loolu ñun dañuy teg suñu bopp lu metti. mais waaw mooy loolu comme comme lu may wax sànq rek. kan moo taxaw tamit pour bëgg euh, sauver loolu moom waxoon naa ko sama sorte maanaam su ma koy waxaat day mel ni sax lu may répété waat man maa ko fi dese. Mm-hmm. xam nga waaw boo ñaax man mii maa ko fi dese si biir géejawaay waaw te lu mu yàgg yàgg yàgg garab ci kaw lay fekkante man maa moom day yàgg yàgg rek wallaahi at day dem rek waaw man déglu ma la xoolal waaw man cinq ans ci ginnaaw ak trois ans. ba jàpp xolal huit ans ci ginnaaw yàlla def xama waaw yàlla baay ñoog bakkan bi rek xama ñu nekk si jàmm rek cat musul ñu si cat lu mu yàgg yàgg yàgg naa la fekk ji boo tapetul bàyyi làmb yeah bu tapetul bàyyi làmb. non dugaluñu fenn wallaahi. boo ñaaw dugaluñu fenn. lu mu yàgg yàgg maa moom dañuy daje te parce que comme nu ma koy waxee rek bëre bokkul. bëre yi bokkul xeexi bokkul fiir yi bokkul adversaire yi sama jamartarement opposé xam nga yaa ma gën a xam moom xam na. yow daal pare nga pour jëli revanche. waa xam naa boobu revanche moom revanche bu diis lay doon. revanche boobu dafa nekk revanche boo xamante ne maanaam ñëpp laay accompagner seen ñu mu daan ñëpp téye ko sama loxo bëre ko si benn tàkkusaan te bis dina ñëw di dinañ laale ma moom. Mm-hmm. man dama gëm sama bopp. Mm. yeah. ñu gis benn combat boo xamante ne combat bu neexoon la mu combat bu amoon riir mais gis nañ combat bi sa jour combat bi violence bu ci amoon daa jéggi dayo mooy diggante Zarko ak Ada Fass ba dégg naa waa CNG sax teg na leen ku nekk daan un an de sanction duñ bëri combat boobu noo noo ñu ko mën a jàngat. waaw maanaam combat boobu combat takkusaan maanaam combat boo xamante ne maanaam takkusaan boobu mm. maanaam combat.